mbokki internet yi taamu di ñu bàyyi xel ak safoo ci Public SN TV ñoo ngi leen di nuyoo di leen jaajëfal bu baax ñu ñëw ak yéen ci coow li nga xamante ne moo rëmbee instant bi mu nekk lu ñeel wàllum déclaration de politique générale DPG bi nga xamante ne ñoo ngi koy xaarandi ci kii nga xamante ne moo di premier ministre Ousmane Sonko loolee nag jur na polémique bu rëy ci fii nii ci réew mi ba nga xamante ne ku nekk di ci yëye ko yàbbi moo xam ñi fare ci gouvernement bi wala ña Touré nekkoon fi ab premier ministre ca nguuru Macky Sall te léegi mu bokk ca coalition joomaay président moom tamit génn na joxe xalaatam ci lii nga xamante ne ñoo ngi koy xaarandi ci Ousmane Sonko moom moomee nag ci compte Facebook am la amal benn post di fa wax ne déclaration de politique générale bi Ousmane Sonko mën a gu kaa amal léegi nii foofee ca assemblée nationale topp teg na si nag di wax ni ñuy topp di wax délai bi délai bi délai bi amul benn article buy wax ni premier ministre bu fi toogee trois mois rek dafa war a génn de politique générale boobu mom tamit néna assemblée bobu dafa nek assemblée bo xamante sans légitimité la motax Ousmane Sonko mënul taxaw jakarlo ak député yoyé mom nak lu gis moy assemblée bi dañ ka wara tass avant le 31 juillet manam avant ñuy yegg 31 juillet assemblée bi war nañ ka tas tabaat yenen député yo xamante ils seront légitimement élus mom moomee di Aminata Touré nga xamante légui léegi ngi Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diomaye Faye moom nag loolu la joxe xalaatam mu mel ni daal mbokk yi coow li ba léegi pareegul ku nekk dina ci génn wax xalaatam ak lan la gis ni Ousmane Sonko loolu la war a def te gis nañ tant moom moomee di président du gouvernement muy usmaan Sonko génnul wax lan lay def coow li du mën a jeex mbokk yi ñoo ngi leen di jëfal bu baax wéy leen di ñu suivre ci suñu yeneen programme